tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen joo màggal gu màgge royo waay la tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen ju am màggal ge royuwaay la sëñ Mbàkke Madina teeru na gan ñi teral gan ñi ba ñëpp kontaan sëñ Mbàkke Madina teral na gan ñi <coughs> heure passée nga nekk bi di nelaw rek. góor góor góor la moom si waaye. sax góor la mu daw. joola ñu mujj waay. heure passée. atia nga nekk bi di nelaw rek. joola ñu am ndox. su ko teelee yàlla bi. atia joola ñu am bi. ndox maa ngi ci toile tool bi nag seen wecc nag di dama ko bëgg a bay gerte laa koy bay nag seen waay yaa ngi boobu waaw laa gisul de paa bi ma ay maa ngi nii ci toog ah am ah. tey dama bëggoon a wàcc sax man ah. dama so def ni bu ñu wax dene dene bu ma dencoon fii waay dene gisuñ ma ko Kalau lebih yang lebih mom kamu ban Arab lagi kau dapat lagi. Cio. Alai alai. Ya rukun. Kai kai. Ha. Kai. Go go go. Macam. Dah nak perkal. Kanat bin yang. Cep cep cep cep cep. Karena mata jepuk jempu. Jepuk. Jajah bai. Jajah bai. Wah bai lori ni. Mana? Pakai.

Thank you. brother. ñu ngi lay. yow ci loo nekk. maa ngi nii. ñun ñu ngi doog a wàcc nii. ah. ama kii bi ndagul pare na. ngeen kenn ngeen wàcc de. waaw wàcc nañ de. ndagul de pare kaf bi mu pare na mu sedd naa ba noppi mu des dëgg. ñun de ñu ngi toogal ci bi rek xaaral ko. mbirum jigéen moom fooy yéen. est-ce que léegi ah baax na si kanam. maa ngi ñëw sax. ñoom ñoom. déedéet ay xale. mais def ko sax waxal la fa nekk. waaw woote ngeen. waaw waaw dëgg la dëgg la waaye man bu leen doon waxoon de xaaral ma toog jot. tuuti moo ci def tuuti. xaaral ma toog jot bu leen doon waxoon. eh parce que indi nga ko si papa sa papa moo yor mag bi kon indi. eh eh. yaay baal ñu teel eh baal faa. lan moo lan lan la baal ñu teel ko. eh bi waxuñu rek bu góor bi jotee ñu ñu góor bi teel la wax na. waaw nan ngeen di wax seen papa dëgg. waaw ñun xam nañu lu ñu ko waxuñu rek. lan moo xam. dañ la ko wax ñu heure bi jot na prix ba mu laaj bi. ñu wóor ñooy ñëw ñu wóor ñooy ñëw. te comme ma wóorul yëpp. ñu wóor daal ñooy ñëw. waaw ñu yëbaatuñu.

warul de. amul ngeen ci. ngeen dem julli timis yaa gën a xam ne wóorul. warul de ngeen fi ne ngeen fi nekkee. di wax wax wax nga ne paa bi moom mooy loolu fekk or duy or sax kii boo naa wax tawul ko daf lay wax. moo ko naan di ngeen di gis bokkul dinaa feneen loolu wóorul. waaw man nag maa ngi dem ci biir moom man bii man naa ci biir. eh Paa bu wóorul Paa mooy ci biir laa koy téye. xam nga ñoom Mina sama nijaay daal chaque jour rek ak problème bu ñu dem ba ànd ko day wóor nekk wóorul ay man maa ngi jaar waaye nag lu ay yëngu si sol xale naa ci te yëpp gën a wóor tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen joo màggal gu màgge royo waay la tuub leen tuub naa mbir maa nga poroxaan jenn jigéen ju am màggal ge royuwaay la sëñ Mbàkke Madina teeru na gan ñi teral gan ñi ba ñëpp kontaan sëñ Mbàkke Madina teral na gan ñi